macha allah yàlla nañu defal jàmm wax naa ko waxati ko répété ko ay yoon yoon yoon jàmm ji nga xam ni moo ñu sonal yàlla bu yàlla xool ci ñun ba jàpp ni dañoo sonal bay fowee suñu jàmm ba mujj jural musiba ndax wax dëgg yàlla musiba baaxul de dàbba te yàlla nee na wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa moytu leen fitna moytu leen ay ndax bu yow ñëwee du yem ca boppi borom gis ku yoonam newul ci mbir mi bakkanam xaj na ca lépp xaj na ca et nag je de cause foofu rek laa ci mën a baaxul loolu baaxul baaxul yal nañ ci yàlla musal nañ yàlla defalaat jàmm yal nañ yàlla defalaat jàmm jàmm loo ko jëndee rek xam ne jar na lépp loolu loo ko jëndee xam ne jar na lépp wax naa leen ni yàlla bi muy wax waa Quraysh ni leen bokk na ci li war a tax ngeen may jaamu dafa ni yéen fal yaabudu rabba hadal bayt alladi atamahum min juuin wa amanahum min xawfin yéen de yelleef la wareef la ci yéen ngeen jaamu ma ndax ñaar yi nga xam ne bu ko nit amul dundam du neex yéen may naa leen ko mooy xiifu leen te tiitu leen ba boo xiifoon ba pare tiit doo mën a lekk waaw nit tiim na lekk yëg ni xiif na mais xel mi dalul ba mu mën ko lekk kon yàlla may la loo lekk ba pare may la xel mu dal ba nga mën ko jëfandikoo te doo am benn jafe-jafe loolu dafa am solo de dafa am solo yal nañu yàlla yal na yàlla delloo si waat suñuy xel ñun ñëpp rek waaw ñu xam ni réew mi ñoo ko bokk réew mi ñoo ko bokk mënuñu ko xar mënuñu ko séddoo nañu ko péncoo waxtaane ko rek waxtaane ko rek lépp tegu ci dëgg génne li Cheikh Al Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh daan wax lépp luy sentiment yeeg ay ay par parloog yooyu yëpp ñu génne ko kenn ku ci nekk def sa yitte def sa taxawaay ñi war a wax dëgg yépp ñu wax leen ko nag ci fànn yépp ci fànn yépp nag loolu dinañu dimbali ci suñu réew macha allah ba jàmm am fii ba dëggit fi dox loolu dafa am solo macha allah yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na yàlla defal dal yàlla yàlla delloo suñu sago ñu baal ma loolu parenthèse la woon rek xam ngeen ni bi ñu fiy mujj ci tafsir amoon nañu ci saar bi di sutul baqara deux cent cinquante deux verset kon ñu war a jël deux cent cinquante troisième amoon nañ ci ñaar téeméeri aaya yu teg juróom fukki aaya ak ñaar tey ñu war a jël ñaar téeméereelu aaya bu teg juróom fukki aaya ak ñett muy xisib bi mujj nag ci baqara bi muy tilka rusul la ñuy jële tey borom bi subxanahu wa tey dafa ñëw di wax ci programme am moom borom bi ni mu jële yonent yi ba pare def nit ñoom tolloowuñu ay degré mu ni tilkar rusulu la la yooyu la yonent day nga xam ni seen mu toll na ci cent vingt quatre mille dañ ko wàcce ba trois cent treize dañ ko wàcce ba vingt cinq dañ ko wàcce ba ulul azm min ar rusul muy cinq dañ ko wàcce ba ki ci jiitu nag di sallallahu alayhi wa sallam nee na ñoo yonent yépp nag mbooloo la ñu mu takku waaye faddal naa yàlla borom bi subhanahu wa taala ni faddal naa baadahum ala baadin am na ci ñoom ñoo xamante ni ñoo ëpp doole ñenn ñi juróom yonent yi ëpp doole dàbba moo yonent yàlla noox kenn la ci yonent yàlla ibrahim kenn la ci yonent yàlla muusa kenn la ci yonent yàlla isa kenn la ci ak sayiduna muhammad moo tax yàlla doon wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam fasbir kama sabar ulul azm min ar-rusul waaw ñi nga xam ni yonent yi nga xam ni boroomu dogu lañu ni ñu muñee woon muñal situation yenn saa yi nag day doy waar mais dañuy muñ rek muñ rek a fi ne ni mu wax ko loolu ñii yàlla nee na ñoom ñépp ay yonent lañ waaye nag tolloowuñu degré tolloowuñu déedéet da ngay ñëw ci armée bi ñun la ñi ñëpp ay militaire lañu d'accord mais est que doon militaire rek tax na ñëpp yam grade danaan la kii caporal la am na ku ko féete tuuti kaw ñun la mooy caporal chef kookoon am na ku ko féete kaw ñun la sergent sergent ba ñun la am na ku ko féete kaw ñu la sergent chef sergent chef ba adjudant adjudant chef noonu defe naa nga koy toppee rek di ko topp mu dem ba capitaine dem ba euh, colonel dina dem di dem ba général même les généraux sax du ñu tolloo am na koo xamante ne moom la ñuy wax semga am na ku ñu naan kii jiite gendarmerie kii moo jiite euh, armée bi ci seen biir ñoom du ñu tolloo ay grade la mbokk yi sëgëm ñun ñoo mën a organiser suñuy mbir dama la jox armée bi rek ndax mu gën a gaaw ci yow mais noonu nga koy gisee it ci corps bu nekk activité bu nja liggéey bu nekk am na ñu ca nekk ñoo xamante ni tolloowuñ ci tolloowuñ ci ñii dañuy toll fii kii day doon chef d'équipe kii day doon day nekk ci groupe bi kii day nekk fii kii day kenn ku ne ak sa tolluwaay yàlla nee na yonent yi nag man borom bi subhanahu wa taala maa gënale féetale kaw ñenn ñi ci kaw ñi ci des teewul nag ñoom ñëpp a baax ñoom ñëpp am cër ñoom ñëpp a wax ak seen borom waaye nag yamuñu de sallallahu alayhi wa sallam roccim ngeer nag sallallahu alayhi wa sallam yu roccim ngeer ndax ñoom ñi ñëpp kenn ku si nekk sa mission dañ ko limité woon waaye moom yàlla ni ko ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi bashiran wa nathiran yow de sa mbir limité ko yow kenn yamale wala ni la fii ngay yam yow sallallahu alayhi wa sallam laa yónni ci ñépp ngay xuppe ak di bégle yàlla nag nee na loolu maa ko def ci ñoom waaw nee na minhum am na ci ñoom man kallama Allah ñoo xamante ni dañuy wax ak yàlla ku mel ni yonent yàlla Moussa alayhi xam nga ni moom moom moom euh, dàbba da daan wax ak borom ñuy nettali ndeysaan ni neexaayu kàddu borom bi moo tax su yàlla daan wax ak moom du bëgg wax ji jeex du bëgg wax ji jeex loolu nag manees na koo xam ndeysaan da ngay gis nit ku toll ci gis benn xale bu jigéen bu mu bëgg xale bu jigéen ba bëgg ko ñu ne ci seen ngoro dab ba dañuy wax a wax ba nga defee ni li des ci waxu réew mu àdduna yëpp ñoom ñoo ko téye te du jeex ngay seeti ndaw sax boo génnee këram yaa ngi wax téléphone ba dugg sa kër di wax di wax ak moom muy wax ak jiw wax judul jeex te doo xam lan ngeen di wax parce que ki ngay waxal la nga koy la mu lay wax neex na ci yow la nga koy wax neex na ci moom moo tax seen wax du jeex kon nag ana ku am chance wax ak yàlla noo war a def waaw ah, moo tax dañ ciy nettali benn anecdote rek boo xamante ni nag mooy euh, du loo xamante ni mën naa ni la man dama koo liir ci téere moo tax yenn saa yi damay indi mbir yoo xam ne dama koy leerale noonu mooy ban naan yonent bi aleyhi salaatu wa salaam doon na wax nii sama yore sama e, nit xeet de seen boroom xam-xam ak seen borom cër yi dañuy mel ni ñu am doole yonentu waa banu Israël Moussa ni ko pourquoi nga wax loolu ak lan mooy say preuve indi ci indil ma preuve bu ko wan ne mu indi ruuxu imam Ghazali muy wax ak Moussa alayhi salaam Moussa ko waa yow noo tudd mun ko ana Muhammad ibnu Muhammad ibnu muhammad ibnu muhammad ibnu muhammad di ibnu muhammad ba del soog ko di ibnu xasali ni ko man maay diw doomu diw doomu diw doomu diw doomu diw wax ba del soog ko teeral ci xasali bi Moussa ni ko waa yow li ma la laaj mënul woon a gën a simple rek ñoo tudd Abdullahi ibnu Khalifa jeex na Abdullahi laa tudd di doomu Khalifa gay jeex na waaye doon man Abdoulaye xawam xalifa doomu Abdourahman doomu diw di lim say maam ba yegg fu sori mun ko mënoo woon a gàttal wax ji rek mun ko yow lu tax bala yàlla uh, nee lu nekk sa loxo ndeyjoor jor yet yet moo fa ne lu tax waxoo sama yet rek la mun ko am ah, mun ko ah danga faa nekk daan ko sama yet la si laay sukkandiku sumay dox si laay bàcceel sama jur gi amal na ma yeneen njariñ am na li mun ko parce que neexaayu wax bi ngay wax ak yàlla moo tax bëggoo mu jeex man ko mun ko man it ma am chance di wax ko wax jooju du ma bëgg mu jeex Moussa ni ko ah xam nga dëgg sa gars yi de ay njuuma la de déggal déggal loolu mbokk yi Moussa da wax yàlla mu tax wax ji neex lool neex lool ba bis rek mu ni borom bi man di wax dëgg yàlla bëgg naa romb wax de wax ji bëgg naa koo romb de bëgg naa ñu gisee de yàlla ne ko ah te ngaa yem ci dégg bi rek Moussa te ngaa yem ci dégg bi rek ah lan taraani gis nag moom bu ci dugg waaye nag ne ko d'accord da du façon xoolal tel montagne soo fa demee gis ni montagne baa ngi place bi mu woon rek bougé wul deful dara fa inistaqarra makaanu ba saxee ca place am bare boobaa di ma fa gis foofu rek la nga laa la mën a recevoir Moussa dem taxaw ci montagne bi mais jékki-jékki rek gis montagne bi explosé dàpp explosé Moussa xëm ñum ximmili ko ñun ko jógal mu ñëw mun ko yaa Moussa yow Moussa inni stafaytuka ala naasi bi risalati yow bi kalaami tànn naa la ci biir mi ndee fi jox la sama yónnent ba pare wax ak yow fa xuz ma ataytuka wa kun min ash li nga am na la doy nit day doy lu Moussa yamal foofu Moussa yamal foofu waaye yamal foofu foofu laa lay yamloo kon minhum man kallama allah ku mel ni Moussa moom da doon wax ak yàlla mu ni wa rafaa baaduhum darajaat am na ci ñoom it ñoo xamante ni yëkkati naa seen daraja ci kaw ñu ci des nga ñëw ci école bi ñu ni kii mooy kii enseignant la moom loolu rek lañ ko wax del jàngale kii ñu ni moom surveillant la kii ñu ni mooy le surveillant général kii ñu ni mooy le principal bu dee ci ab collège bu dee ci le lycée ba ñun la mooy le proviseur bu dee ca école élémentaire ba ñun la mooy le directeur waaw nga ñëw ci biir université bi ñoom ñëpp doon ay professeur waaw professeur Eslet ki yor droit kii yor sociologie kii yor philosophie macha allah ñu ziare euh, docteur Babacar Diop macha allah euh, le maire de Thiès ñu ziar ko macha allah. le grand philosophe ak seeni i kem macha allah ku ci nekk rek ak la ngay la ngay jàngale <clears throat> waaye seen biir ñu ni am na ci koo xam ni de moom mooy le recteur yéen ñëpp ay professeur ngeen waaye nag am na beneen cër bu ko joxaat am moom la def recteur université bi tolluwaay la ci biir fag yi dafa am fag bu nekk naan doyen fag bi doyen fag bi loolu day am loolu day am boo ñëwee ci wàllu yoon it noonu dafay am naan la ñoom kat avocat yi kii avocat bii la avocat bi ki mooy avocat général kii mooy procureur de la république kii mooy procureur général kii mooy procureur wu fii kii mooy lii kii mooy juge bu mel ni kii mooy le doyen di gis nga dañu am ay tur wa rafaa baaduhum darajaat soo ñëwee ci gouvernement la même chose moo fay am ñii ñëpp ay ministre lañ mais am na ñoo xam ne dañ naan leen ministre conseiller am ñoo xamante ne dañ leen di jox ministre sans portefeuille am ñoo xam dañ leen di jox ministère bu fees dell ni leen yaa yor lii lépp lu ci aju ci ministère boobu yaa ko yor am ñoo xamante ni dañ naan ministre lañ ba pare ministre d'état lañu am na koo xam dañ ko naan premier ministre la yooyu yëpp da koy gis ba ca ko jiite mu ne war a wa rafaa ba'dahum darajaat yàlla nag mooy joxe mooy mooy séddale mbiri kenn ku nekkin nag nangul ko li mu am rek soo bëggee noppalu bàyyi dogalub yàlla di dox nag bu ni war a fa abadum dara jaatin am na ñoo xam ni ci ñoom yëkkati naa seen mbir ba mu kawee lool ku mel ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn la ci woon waaw waaw gis nga yonent yi kenn ku si nekk amoon nga ay mu'jizaat yu la joxoon ndeysaan waaye sallallahu alayhi wa sallam yàlla yëkkati ko ba mu ba mu li mu ko jox ci ay kéemaan kenn mënu koo lim waaw ñoom ñëpp jox na leen waaye jox na yonent bi li mu leen jox ba pare joxaat ko surplus ndax moom kat bokk na ci yi ko doon jox moom daal loxo bi la daan jël rek waaw junj weer wi xar gis nañ ko ci moom gis nañ benn ëkk benn garab tronc d'arbre bu mu daan sukkandiku bu daan xutba ba mu fa jógee muy onk di bimm ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko dégg ndeysaan di ko dégg sax loolooy cosaanub mujj gi rek ñu ni képp kuy xutba na nga ut yet te mu symboliser ëkk googu nga xamante ni fa la sallallahu alayhi wa doon sukkandiku bu daan xutba gis nañu ay xeer di ko nangul moom sallallahu alayhi wa gis nañu ay garab di dox di ko fekk si gis nañu ay bàyyi ma di wax di seede ni moom yàllaa ko yónni gis nañ mu nit ñii baaraam yi ndox di ca génn yooyu yëpp war a faa ba adom yëpp yàlla defal na ko moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam jële nañ ci abu hurayra mu nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na yoo xamante ni day yonent bu ci nekk am na luñ ko jox waaye man am na yoo xamante ni jox nañ ma ko te joxuñu ko kenn mooy ku mu mas di war a xeexal bala moo ñëw un mois sa fit dem nga dem na waaw nee na defal nañ ma suuf siit muy foo xamante ni fu sama xeet fu ñu jot mën nañ fa def jàkkati laab na it ci ñu julli macha allah waaw loolu defal nañu daganal la jur gi yépp ñu daganal ko sama xeet ñu ciy jëfandikoo yowmal qiyaama yu am naa shafaa ashafaatul kubra li rasul al habib al mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey nag yónni nañ ma ci ñëpp te yónnent bu ne dafa am fu ñu ko daan yemale ci yónnent loolu yëpp yàlla ko ko defal na it beneen xadis boo xamante ne abu hurayra na ko mu ni man de gënale nañ ma ci yónnent yi ci ay mbir bokk na ca mu ni jawaamiul kalima yonent bi waxam dafa garaawoon dab mësaana wax rek wax ji day romb entendement doomu aadama yi moo tax nga daan dégg muy wax wax ju yàgg ba léegi nga koy gis boo demee Allemagne nee nañ am na ci hôpital yoo xamante ni des hôpitaux dañ koy bind benn xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam te binduñu ko kat ndax ni dañ ko gëm mais dañu koy bind parce que dañu gis ni lii day régler problème bu baax ci wàllu santé parce que gis am na benn buur bu mas woo ci diine kooku enfin nee nañ gëm na gëmul ala kulli xaal waaye jox na ko ay teraanga bokk na ci teraanga yi mu ko joxoon sax maariya mi waaye bokk na ci li nga xamante ni joxoon na ko yabalal boo jox ko benn dokteur pour ku tawati mu fee ñu faj ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko dokteur bi nag moom taxul ñu bari ci solo ndax ñun nit lañ ñoo xamante ni du ñu lekk lu dul ni dañoo xiif te bu ñu demee ba xiif it bay lekk du ñu lekk ba suur ban kël duñ fa yegg moo tax xëy na feebar yi du ñu yomb xadis bi ma lay wax nag dafay wax ni doomu aadama feesalul mbuus mu gën a bon biiram mu ni bi xas bim ne aadama lu xaymaatu maatun yu xim na sulba nee na kenn ku ne ay tibb yooyu dëgërloo doy na la nee na su fekkente ni mënoo bañ a lekk nee na li mu la bëggee a organiser loo sa sa lekk mooy na nga ko xaaj ci ñetti xaaj benn bi nga ciy lekk benn bi nga ciy naan benn bi nga ciy noyyi bu lekk fépp ba doo am foo naan mooy ñooñu nga xamante ni foo leen fekk bu ñu lekkee rek naan këlëb du ñu mën a def dara lekkal lu yem bàyyi fa it looy naan waaye bul naan a naan ba doo mën a bouger bàyyi fa it looy noyyee waaye koo xamante ne day dem ba ci gémmiñ gi lay noyyee ndax dafa lekk lekk ba mënta bouger jaañeen yi loolu ñoom ñoon Pape Matar Diagne ak xeeti jaañeen yooyu ay ñoon Abdou Khadir Diagne ñoon xam nañ loolu loolu nag dañ koy bàyyi dañ koy bàyyi dina tax seen naafila yi du mën a yegg seen daara du yomb daara du leen yomb rek macha allah mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam loola la gaa yi bind foofu ne xadis bii de suñ ko déggee lii wax jii ñoom dañ ñoo jàppoon rek wax la ku dégg lii mën na régler situation yi régler lool nit ñi ba ñu bañ di lekk lu ëpp loolu dina tax seeni feebar di wàññeeku waaw ndax xoolal feebar yi xew léegi na si yoo xamante ni ëppal ci dara rek moo moo léegi ndeysaan dëkk bi bari na loolu ñu amee jafe te danaan la suukar su ëpp ci ñenn ñi moo tax danaan la wàññil suukar sa glycémie dafa am problème parce que yaa ngi un virgule wala yaa ngi deux yenn saa yi sax trois trois ñenn ñi nga gis ñu la te da nga war a wàcc ba zéro virgule bu lu am na sëy boo xamante ne boo ci duggee rek yaa ngi dugg ci commencé am suukar yëpp c'est ay mbir la ay xam-xam la kon yooyu sallallahu alayhi wa sallam na joxoon nañ ko ko jawaamiul kalim nee na it ak ku mu ku mu war a dajeel nga ragal ko waaw waaw ak suuf si fu ko neex laab na pour aw xeetam saa yu ñu bëggee julli ndax am na ñu fi jaan jaar ñoo xam dañ naan la amoo fenn foo mën a jullee ci misaal lu dañ naan la jàkka képp nga mën a jullee ñun mën nañoo jullee ci jàkka ji mën nañoo jullee fii ci mbedd mi suuf si yëpp laab na ci ñun mu ne loolu defal nañ ko xeetu sallallahu alayhi yooyu yëpp ci ngëneel yi yàlla defal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni waatee naa ay sam na al bayinaat nee naa Isa ibn Maryam moom yàlla jox na ko lay yu bir moom isa alayhi salaam kenn du moom waaw moom ma ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mawta bi xam nga dabba yonent yàlla isa daan fekk ku yore feebaru ngaana gu méttee metti mun la wéral bi nga wér fekk ku daawul wax mun la waxal ngay wax gis ku silma xam mu raay la ngay gis da daan fekk néew bu faatul mu ne ko xum bi iznillah jógal ci ndigalu yàlla wa uxyil mawta waaye nee na lool lépp nag du sama njàmbaar waaye bi iznillaahi la maa ngi ko doon def ci ndigalu suñu borom subhanahu wa ci mbaaxu suñu borom la ma lool yomb kon nag mu ne wa ayyadnaahu loolu lépp yàllaa ko joxoon moom yonent yàlla isa alayhi salaam mu ne wa ayyadnaahu bi ruuxul qudus nee na <clears throat> ñoo ko dëgëralit ci ruuxul qudus muy jibril alayhi salaam mu doonoon wéttalam ci fànn yépp di ko taxawu bu baax a baax a baax moom isa alayhi salaam kenn ku ne xamun digganteem ak jibril alayhi salaam comme ni mu meloon ak yonent bi mel kooku Moussa ak kii naa Moussa Moussa zaka fabtasi bi Cheikh El Hadj ca xilaas mu ni kon loolu lépp maa ko def mu ni wala shaa allahu bu neexoon yàlla maqtatala alladina min baadihim ñi ñëw ci ginnaaw Isa wala ñëw ci ginnaaw maanaam fartara yi daan am nan daan dem ba si ak riiroo am rek nit ñi commencé di histoire di rayante mu ni su neexoon yàlla loolu du am nee na su neexoon yàlla loolu du am min baadi ma jaatuhumul bayinaat ginnaaw ba leen lay yu biir yi ñëwee dikkale kon bu dee yàlla histoire du fa mu ne walakin ixtalafu waaye dañoo wuute fa minhum am na ci ñoom man amana ñoo xamante ni gëm nañ yàlla wa minhu am na ci ñoom man kafara ñoo xam ne weddi nañ yàlla mu ne walaw shaa allahu bu neexoon yàlla maqtatalu du ñu xeex de walakin allah waaye yàlla yafaalu maa yuridu mooy def lu ko neex kenn du borom bi nee na yàlla yafalu maa yuridu yàlla nday def lu ko neex mooy yàlla <laughs> mooy yàlla ki yàlla nag moom ah lu ko neex day def moo tax loolu day dugg ci wàllu prédestination le destin yàlla kon nee na su ma neexoon lii du am kon ndaxoon neex kon nit di nga gis ko la kon nag mbiri mbiri nag aussi est que du yéefar gi ma nekk wala geen ñàkk a gëm gi est du yàlla la neex ah. tax ndeysaan jenn dafa ñëw ci Ali ibn Abi Talib di ko laaj ci affaire ni ko yaa amir al muminin axbirni an al qadar wax ma ci mbirum dogal li yàlla di dogal ba pare ñun la lan lañ ciy defati daal maanaam mbir mu ne kon ki am ay milliards yàllaa ko dogal ci moom ki ñàkk yàllaa ko dogal ki feebar yàllaa ko dogal ki wér yàllaa ko dogal ki accidenté yàllaa ko dogal ki lii ki lii ba yenn yi sax doo mën a xam moo tax daan nga dégg benn benn benn waxatu tubaab benn philosophe boo xamante ni gëmul woon yàlla daan wax naan pourquoi un Dieu absolument bon absolument absolument i infiniment bon infiniment intelligent peut-il être à l'origine de tant de maux qui assaillent notre monde pour moom yàlla moom moom dafa jàppoon ni parce que amul imaan moom nee na jàpp dogal yi am lu tax yàlla di ko seetaan yàlla mi naan dafa baax yàlla mi naan dafa lii lu tax muy seetaan yii xew di xew maam Cheikh El Hadj Malick ne loo ni yàlla du ko seetaan seetaan na lu ko dafa yor programme am rek moo tax bi ko waa ji laajee Ali ibn Abi ni ko ah, sëñ bi yaa ngi dugg ci yoon wu yoon wu lëndam tee nga cee bañ a sóobu bàyyil bul dugg ci affaire xadar dogal yooyu yamal rek fil la ci yem waa ji delluwaat laaj ko Ali ni ko yaa ngi dugg ci dex gu xóot tee nga cee bañ a sóobu lab dalay lay romb de waa ji continuer laaj ko Ali ni ko loolu de secret bi yàlla la bu mu nëbb tee nga cee bañ a dugg di ko gëstoo ka lijjanti <laughs> ni ko bul dugg ci loolu ndax yàlla moom faalun lima yuridu lu ko neex lay def kon lu mu def xam na raison yu tax mu def ko kon bul dugg ci yenn yi waaw lakin allah yafalu ma yurid mu teg ci nag ni yaa ayuha alladina amanu yéen gaa yi gëm yàlla yàllaa ngi wax ak ñi gëm suñu borom subhanahu wa mbokk yi mu ngi wax ak gaa ñi nga xamante ni am nañu iman lan la wax ak ñoom mu ni imaan nag mooy lan mooy la boroom xam-xam boo xoon laysa imaanu bi tamanni wala bi taxalli walakin kin ma fi l qalbi wa sadaqahu l amal waaw nee na ngëm yàlla du ay mbébét du ay takkaay du ay tiitaru yooyu tiitaru du ay jaagar jaagari déedéet waaye nee na ci xol lay nekk soo jëfee jëf ji dëggal li sa xol di def loolu mooy al imaan ci xol lay ne soo jëfee sa jëf ji dëggal li nga xamante ne moom la sa kàddu doon génne waaw ci xol bi la ne jëf ji moo koy firndeel waaw loolu la ñuy wax lisaanul xaal asdaqu min lisaanil maqaal too naa daal ku gëm yàlla laa man xam naa ni gëm naa sama borom yooyu am na lu ko gën dàbba mooy di def li yàlla santaane di bàyyi li mu tere loolu soo ko defee jaru sax nga naan gëm naa nit ñi xam nañ ni gëm nga jëf ji moo koy dëggal bu julli jotee demal ca jàkk ja tàmm ko waaw bis bu jot moo waa daara ji nañ ciy bàyyi xel jàkke yi dañ koo def ngir ñu ciy julli ji mënuñoo dëkk di waar nit ñi te kenn du ñu gis ci jàkke yi kenn du ñu gis ci jaamukaay yàlla yi nañ ko bàyyi amul benn cër amul benn mbir moo fi am ba war a jomb di dem ca jàkke ji ñu lay gis nañuy julli ji ndax ida raaytumu rajula yaataadul masjid fashhadu lahu bil iman yonent bi nee na su ngeen gisee dàbbakat mu taqoo ak jàkke yéen waa HLM ngeen gis ni dàbba saa yu liggéeyul bu nekkee ci koñ bi bu tisbaar jotee mu nga ca jàkka ja bu timis jotee mu nga ca jàkka ja fajar jàkka ja xam nañ ko paawu jàkka ja jeune jàkka ja yëpp xam nañ dàbba ndax miin nañ ko ci jàkka ji ku mu neex nga ni billaahi wallahi wa tallaahi dàbba ku gëm yàlla la ku am imaan la kon imaan a ngoog mu ni kon gëm leen mu ni kon yéen gaa yi gëm anfiqu mimma razaqnaakum dépensé leen ci li ma leen wërsëgal mimma yàlla baax suñu borom moo baax nim maa la wax ci lenn ci li ma leen wërsëgal dépensé leen ci min qable an yow yawmun laa bay'un fii balaa bi sa ñëw boo xamante ni am njaay amul foofu da xam lu mu jublu ci am njaay maanaam amoo fa possibilité li tax mu tudde ko al bayu foofu mooy jotu ñëw ci malaaka mi waaw mën rek leen rek sama situation ma jox la fii affaire yooyu amu fa nee yooyu amu fa sa xaalis foofu livre sterling doxu fa dollar doxu fa euh, CFA doxu fa euro doxu fa de amul benn monnaie bu dox foofa benn monnaie ba fay eh, monnaie d'échange bi am yomal qiyam mooy tiyaaba yàlla nañ ko am wala xullatun nee na it amul ak xaritoo diw sama xarit la mu génne la ci déedéet wala shafaatun ay ramm amul de lu dul ku yàlla ram mu loo man zal ladi yashfau ndaw dañ ci jaar léegi bu ñu pare mu ni wal kaafiruuna humu zaalimuuna sadaqa allahu al-aziim nee na wal kaafiruuna humu zaalimuun nee na ñi maanaam yéefar yi ñooy tooñkat yi teg leen foofu seen baaraam ba ñëwee naa ci dikkaat soog dem wal kaafiruuna humu zaalimuuna yàlla nee na yéefar yi ñooy tooñkat yi yàlla nañ yàlla musal ci tooñ yàlla nañ yàlla musal ci tooñ seen tafsir jeexul de waaye yëgg nañ fu ñu war a yëkkatee jotaay bi su ñëwaatee nag bii di ñëw dugg ci ayatul kursi yu incha allah aaya bu doole boobu la ñuy song allahuma shfi mardana warham mawtana waqdi xawaajana waqti bilbaqiyati salihati amalana wassalaamu aleykum wa rahmatullahi